saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa jàngat ba sunu làmb def jëmale ko ca mbër ya nekk foofee ca Pikine ku wax Pikine wax goxu làmb ku wax Pikine wax champion ya fa yeewoo kuy wax champion ya yeewoo ca Pikine faaw nga wax Eumeu Sène nga tudd Boy Niang faaw nga tudd Ama Baldé yi la ñetti mbër la journal ba xëy ak seen ñetti saison yi ñu génn la mu xamle mooy ci diirum ñetti at yi ñu génn diggante Ama Baldé Eumeu Sène ak Boy Niang lu bari xew na ca Boy Niang def na na jéem na fiy yéeg mu tëkko na fi roi des arènes bëgg caa yàgg mu ci Ama Baldé le journal ba xam le mooy ci diirum ñetti at yi nii daan na fi Papa Sow le 17 février 2018 boobee ba léegi ci ay année balance la toog 2018 2019 ak 2019 2020 la ko année balance na fi combat digganteem ak Modou Lo waaye ba léegi dara sotteegu ca mu ngi waaj combat ak Modou xarañ loolu roi des arènes waaye ba léegi dara xeeñagu ca bu dee Boy Niang 2 ci diirum ñetti at yi benn victoire la ci am ak benn défaite gannaaw ba mu duggee Géejawaay jël jël Lac de la ci victoire bu dee Eumeu Sène moom it ci diirum ñetti at yi benn victoire la ci am ak def exploit bi gën a rëy ki daan Mouhamed Ndao Tyson ñaari yoon nekk fi roi des arènes ñaari yoon kookee la Eumeu Sène daan nekk roi des arènes moom Eumeu Sène moo fi daan Bombardier mi fi jaaxaloon magam nekk roi des arènes saison ba ca topp mu jël Modou xarañ loo mu nangu couronne ba ca moom loolee nag nekk saison bu xaw a compliqué ci ñoom Ama Baldé benn combat benn victoire ba xëy dalee ca njuga ja moom ci diggante Lac de Guiers la xëy a neex moo waral mu nekk fi roi de moom it ku ko xam-xam ne champion la mën na bëre mën na xeex te xam na li muy def rax ca dolli moom njuga ja ne bi le daal ku cay séentu xeex mën naa am nga ñàkk koo gis lii waral nga ñàkk koo gis mooy seeni méngoowul mën nañoo xeex xeexu mbedd waaye xeex bu jaar yoon bu ñuy xaar daal gisaguma ko fa wante ku cay xaal combat bu neex combat bu bërit ma ko ca gis ñaari mbër yi xamante nañ arbitre yàgg naa sifflé génn seen diggante waaye bi leen confrontation bu arbitre génnee seen diggante faaw lu neex xew bu dee dul jànjee ko président des amateurs moom ñëw na ci sunu làmb wax fa lu yaatoo yaatu ci lan mooy doxal làmb ji lan la jàpp ne mooy ay changement yoo xam ne bu ñu ko wa mu jëloon changement yi la mu ca gën a xalaat mooy nañu fexee dugal vaar ci làmb ji yooyee daal yu bees la yoo xam a Bira Sène Bira Sène wax ak promoteur yi jël na lépp luy dossier jébbal ko Matar Ba ngir ñu saytu ko dossier ya Matar Ba nar saytu nag bokk na ca protocole sanitaire yi ak budget prévisionnel yu promoteur yi ngir ñu xam ndax danañ mën a dem huis clos wala déet li buñ ko saytoo ba pare danañ xam ndax nguur gi dana mën a jàppale promoteur yi ñu tëggi làmb wala déet bu ñu ko saytoo ba noppi danañ mën a xam ndax làmb dana ubbi waate buntoom wala déet